américaine gis nañu saan suñ ba eh américaine américaine ak enveloppe gis nañ saan suñ mbokk yi nga xam ne ñooy mbëri mag yi màggati ñu ngi ànd ak américaine am na luñ ko defal ndeysaan ay téere jaarale nañ ko si dëndam ak si gannaawam ñii ndeysaan jël nañ li nga xam ne def ko si ndigam enveloppe ak américaine américaine mooy ñun ndeysaan ndeyjoor jox ñu kanam léegi enveloppe jox ñu gannaaw yaakaar naa combat bi léegi mu jeex léegi tey mu jeex ndeysaan enveloppe dugg na américaine bañ na enveloppe dugg na américaine bañ américaine enveloppe jaara central kiang is yaakaar naa ne kiang kiang is am na ñaari ndam jaara central am nañ ñoom it benn ndam ndeysaan kii ngi ñaari ndam lañ amaale seen six six bi moo daan oh enveloppe daan na enveloppe daan na américaine enveloppe daan na américaine jëli bi métti na ndeysaan añi ñaadiyaata baatele ha jewata ah, baje mbe ko yabule bo ah mi ñobono fo ala tentu kontanta baake le ñom be mbala mo men la sata ko nabi ala tentu baake kontanta baake yabule bo be kontan nim baake ñin ñobor ngola janne na se folu na gofano e ñi ñobor organise a ñama molu naata birolu be dunna ñoboyo be mbe be kontanerim baake janne mbe damen to ñim ngo se o baake le kaal ko ñim be aka molo lon ñola aka bari sunkuru o kamara won ayin condamné baga ay sewodu baraka alkali ndefa mo ñobro mbirol ñu san ngam fonyo wa o tay mo wadi yatale bay watu mo mo eh, wallahi wallahi alhamdulillah rabbil alamin kontaan trop à Linguère parce que lii lii la government wa te lii la Yaya Jammeh wa lii la ministre bi wa lii la Gambia Wrestling Federation wa kon di organise lii pour ekati bore bi tey ñu war nañoo kontaan waaye nag il faut ñu jërëm tamit ñoo xam ne ñooy leen fekk fii si ground bi. dafa mel ni Chinese ak Maafe ñëwaat nañ dafa mel ni bii individual catégorie la bële ndeysaan kii ak Islam ak kii ak central ak jaar central hey ndeysaan Chinese ekkati na oh, Chinese tànn na. kii nga xam ne mooy uh, Amat Seen moo def josaani pol bi di jàkkaarloo kii nga xam ne mooy Liminès diggante Liminès ak kii mooy Amat Seen na. waa kii nga xam ne mooy Liminès daan na Amar Sène la boy sai america la yala do boy mude yala do boy sa si da tem wo sabu fo mude be bulu nga filitale dinna borol ma filta ba bar be bo do sot la sama ay beta bo dole ñine la ñino lankara borol ñine lankara chala alam biro lu kado ya kawol di ke kana mballa wala ate na ni sambo ma ware kam ko kaje ni wala do kadale wala ne ke boy sedde kam mom naka len ko nekk di préparer parce que legi day ñu aksi fa ñu ci inshallah wa xam nga like eh, ken xam nga duñu bëgg wax naka la ngeen waye so na excès siara dengan ngeen xam ne da ngeen gis xam nga amoon de junni ne ko gisoon ngeen bëre bu fa te inshallah bu neexee yàlla bëre bu am on Thursday ak Friday will be a difference waaw gars yi ñu ko te xam naa dina successful gouverneur Gandhi Touré moom ñu ngi koy nuyu mbokk yi ba tey ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy gouverneur Queen diame eje bi inata jara soma ye ñoo bëri ngoo organise jang abe diyaare mool be kontaring maalong altol alla jaya alla jeema fango al yemu ne plan am ah, fana bem pare kan ne bawo kule mata min beta regional bele to eh, ko gouverneur Gandhi Touré a fo ñaming e ñamin nata jang retreat la so nim benta ñim fee kanna solidarité tandin ninna colleague eh, ma min keta gouverneur salif salifu puiti wala ya sabu nata jang wo fana kola sefol nin kumandangol meta ado kono ku wala pour que aɗo ñika ga ne wati jang sefol kañin organise le gouvernol fana kumandangol nun ka nyoborol organise le aɗum nyoboro fana mum na aɗa tulun dimalet collegue amen gouverneur puy waɗi mine invite min gara min tawe min jiiya sippiro jara somannaɓe a ko ɗum woni dalila amen gargol ɗo sippiro onon joni onon honɗu on waɗata sare moon honɗu on waɗata plan a anaɗa andi minen ko minen mbiyete fuladu du sippiro koto amen fuɗɗi so nani sippiro cosa amen fuɗɗum yano ne ko